Birama Ndiaye. La présentation soli Fati assure la partie technique. Euh, rentrée scolaire dans un contexte de pandémie à coronavirus, le ministère de l'Éducation nationale, les enseignants et les parties prenantes euh, ont pris les devants pour réussir le Ubbi Tey Jàng Tey avec le respect des mesures barrières. Selon le ministre, toutes les dispositions sont prises Il invite par ailleurs dans la même euh, les collectivités locales et les parents d'élèves à jouer leur partition pour une bonne année scolaire. La rentrée pour le personnel enseignant prévue le 5 novembre prochain et le 12 novembre, c'est pour les élèves. Mamadou Tala, que nous écoutons au micro de Moustapha Sall. Cette rencontre qui est, en tout cas depuis des années, maintenant un élément essentiel de notre agenda. Euh, ces rencontres, on peut dire qu'elles terminent une série de rencontres, des ateliers thématiques à Thiès, des rencontres ici dans le dialogue social et aujourd'hui avec la direction des ressources humaines, avec l'ensemble des partenaires, collectivités territoriales, assemblée nationale, syndicats, euh, partenaires sociaux, la société civile, les parents d'élèves, tous les acteurs, les inspecteurs d'éducation et de la formation, les inspecteurs d'académie, les directeurs et les chefs de projet, tout le monde toute la communauté éducative en un mot, on est venu aujourd'hui à pour préparer en tout cas ce qu'on appelle le séminaire de rentrée. La rentrée scolaire pour le personnel enseignant et administratif est prévue le 5. Pour les élèves, les enseignants, les élèves, l'ensemble des élèves, cette fois-ci de tous les élèves, du niveau préscolaire jusqu'au baccalauréat, c'est le 12. Et aussi les dispositions sont prises. Nous lançons un appel aux parents, aux collectivité territoriales, La mobilisation qui avait été faite le 25 juin, qui nous a permis de reprendre dans d'excellentes conditions, d'avoir de bons résultats, qui nous a permis également de respecter euh, notre protocole sanitaire, de telle sorte que l'école n'a pas été, en tout cas, source de propagation de cette maladie. Nous maintenons donc cette dynamique qui existait. Et donc, à l'issue de cet atelier, atelier d'essence, de partage, de méthode, d'analyse, de bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et de projection pour cette année, on dira que, Inch'Allah, nous allons démarrer dans d'excellentes conditions. Cette année scolaire 2020-2021 a fait qu'on ait des résultats encore meilleurs que ceux de cette année. Et puis, le syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal a sur les fonds baptismaux. Le SATUS se veut syndicat de rupture et de changement dans la démarche affiliée à la FGTSB. La centrale compte l'accompagner dans la lutte syndicale, dans l'encadrement et dans l'autonomie financière. Le camarade euh, Aliou Faye est le nouveau secrétaire général qui promet de faire face à la presse dans les jours à venir. Nous écoutons à ce propos Sidy Ndiaye, il est le secrétaire général de la FGTSB. à l'issue de cette assemblée constitutive. Vous savez, aujourd'hui dans ce pays, presque tous les services ont les mêmes difficultés, qui sont liées parfois au problème des contrats de travail. On a vu aujourd'hui qu'il y a un abus dans l'utilisation de la main-d'œuvre taillables et corvéables par des contrats dits de prestation de services, par des contractuels euh, de 5 ans, 10 ans, alors que la loi est très claire. Au terme de l'article L42 du Code du travail, lorsque vous avez un contrat de travail, vous avez la possibilité de renouveler une seule fois. La troisième fois, vous devez embaucher. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens travaillent pendant des années, ils sont là, euh, etc. Et c'est dans tous les métiers maintenant. Donc je crois qu'aujourd'hui, les universités ont beaucoup de personnel. C'est important. Nous saluons les efforts que fait l'État pour recruter du personnel, mais il faut que ces personnes soient mises dans des conditions optimales de servir. Donc aujourd'hui, le statut, c'est une nouvelle démarche. Hein, plan syndical. L'appel que nous allons lancer à tous les travailleurs des universités du Sénégal, c'est de venir autour du camarade Aliou Faye et de son équipe pour faire en sorte que nous puissions avoir des conquêtes sociales importantes pour changer les conditions sociales d'existence. Absolument, le social, euh, vous savez, le syndicat d'abord, c'est avant tout le social. Parce qu'il faut qu'on se soutienne, qu'on se mutuelle. On n'a pas les mêmes problèmes. On est prêt dans un entreprise, parfois on n'a pas les mêmes salaires. On a des, il y en a qui ont des difficultés, nous venons d'horizons divers. Donc le social va véritablement prendre une large place au sein de ce que le service doit, faire. Et nous devons aller au-delà même de cette solidarité qui consiste à faire des cotisations sociales. J'ai dit qu'aujourd'hui, rien n'empêche le statut de faire un programme de logements sociaux, une coopérative d'habitat pour aider ses membres et également aider à ce qu'on règle la question de l'endettement des travailleurs au niveau des banques, au niveau des institutions financières. sont très déterminées, mhm. elles sont là plus nombreuses que les hommes et je pense que ça va marcher. Mais nous l'accompagnerons d'abord dans l'encadrement, parce que les statuts, les règlements intérieurs, c'est à nous de prendre les démarches. Nous l'encadrons aussi dans la question de l'autonomie financière, parce qu'il faut qu'on les aide à voir comment dépendre exclusivement et uniquement des moyens euh, du syndicat. Nous allons le faire. Nous allons également au sein de ces structures menées par le SATUS, il est clair que la FGT sera toujours dans le camp du SATUS pour combattre l'injustice. C'est clair. Puis les artisans du Sénégal regroupés autour de Revas se félicitent de la nomination du ministre de l'Artisanat. Toutefois, les attentes sont nombreuses et multiples, telles que les problèmes liés au déguerpissement, les sites de recasement, entre autres. Selon Pape Mbaye, la majeure partie des migrants sénégalais sont constitués de jeunes artisans qui n'ont plus où travailler. Nous l'écoutons au micro de Sud FM. Tous les secteurs de Dakar, y a ces secteurs. Bon, tout le monde attend quelque chose de nouveau pour le nouveau ministre Pape Amadou Ndiaye envers les artisans qui ont été toujours exploités, ruinés, bon, à cause du gouvernement qui était là, euh, qui était un gouvernement déguerpisseur, qui déguerpissait les artisans dans les secteurs bon y' a plus de secteurs même dans le département de Dakar tout a été déguerpi par l'ancien ministre du gouvernement. Vous faites toujours l'objet de déguerpissement mais le président vous avez euh, octroyé cinquante hectares à Diamniadio jusqu'à présent vous peinez à y accéder qu'est-ce qui qu'est-ce qui bloque? Bon, tout tout est bloqué parce que j'ai entendu un jour Cheikh Dianka parler avec le président de la République qui disait bon, il faut octroyer les cinquante hectares aux artisans bon, au palais même présidentiel. Jusqu'à présent, c'est pas exploité. On avait créé une commission à Diamniadio avec le ministre Dame Diop bon, pour créer une commission de suivi envers les artisans et les autorités étatiques, mais depuis lors, on n'en sait rien de plus. Bon, on ne, on ne connaît pas le, le site d'abord, et puis, bon, on n'a aucune information sur les 50 hectares de Diamniadio. La, formation aussi pose problème chez vous. la formation, on a parle toujours. Mais vous savez, nous, les garagistes, on est des formateurs. On est des formateurs, on est des professionnels, mais on ne peut pas former des gens. Bon, ils viennent souvent avec leur gradeur, leur caterpillar pour déguerpir les artisans. Bon, tout ce qu'on a formé, les gens, les jeunes, sont entrés dans les pirogues pour partir dans les pays asiatiques. nous avait appelé au niveau de la chambre des métiers pour des projets. Par exemple, au niveau du GIE Rénovation Automobile, il y avait 66 membres qui avaient déposé pour les projets. 66 membres, chacun 30 000 francs, c'est de l'argent. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. À l'instant, Pape Mbaye qui parlait au nom des artisans du Sénégal et puis de terreur Des fusillades ont fait au moins deux morts, dont un suspect et plusieurs blessés dans la capitale autrichienne. Euh, c'était hier. Ces attaques ont impliqué plusieurs assaillants visés six lieux distincts, tous situés à proximité immédiate de la synagogue de Vienne, a déclaré sur un tweet la police autrichienne. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Loolu sant leen gërëm leen gërëm bu baax Soli Fatimi féete ci xarala gi xibaar yi ñu doore ko ubbiteek l'école gi ci jamonoy mbas tax na rek ña nga xamante ne ñoom ñoo ciy daal di yëngu ñee jël nañ seen matukaay ngir rek daal di amal lii leen di ubbitey jàng tey noo ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci fànn boobee moo ngi sàkku ci gox goxaati rawatina ci mairie yi ak lii leen di woy jur yi ñu xool ana nees la ñu def ba daal di amal ubbiteek l'école gu mucc ayib Mamadou Talla ñu teewlu ko ci micro Moustapha président de la république jël décision encore euh, dénk ñu disons ministère éducation nationale boo xam ne soo jëlee élèves yi rek quatre millions la donc mun nga wax ne c'est le quart du Sénégal loolu nag yombul nu ngi yaan la yàlla dimbali ñu pour que moom li mu doon xaar ci ministère bi euh, ñu mun ko réaliser dans de bonnes conditions xam nga depuis maintenant trois semaines ñu ngi ci ay réunion ñu ngi Thiès ci ay comité ci ay atelier ñëwoon naa fi la semaine dernière ci dialogue social tey encore mu ñëwaat fi di wax ne rek année scolaire bi su ci yàlla àndee le 5 la enseignants yi ak administratif yi ñooy ñëw et le 12 incha allah élèves yëpp ay ñëw donc le 12 ouverture la boo xam ne c'est ouverture koo xam ne ça concerne tout le monde donc di wax rek rencontre bu mel ni rencontre bu am solo parce que fii amul benn parti boo xam ne mu ngi si euh, communauté éducative nekku fi jéem a seet nan lañu war a fexe comme jóge nañ si année boo xam ne année bu particulière mu ngi sant yàlla am nañ ay résultats yu baax. suñu amee résultat yu baax yooyu c'est parce que tout simplement dynamique bi am fi tey bi ngeen gis ni moom la doon utiliser ñu ànd defar ay proposition proposition yàlla def si ñu am méthode boo xam ne bu baax la bu ñu xam ne classe d'examen yi réduire nombre yi joxe enseignants yëpp ñëw ñu encadré la ñu amay résultat yu baax léegi nag ñu ngi def bilan bi anne bi passée jéem a seet également nan la ñu war a def pour que 4 millions d'élèves yi suñu ñëwee ah ñoom dès maintenant le premier jour mooy wax ko li ñu wax ubbi tey jàng ñun aussi dès le premier jour donc le 12 ñu mun a commencer enseignement apprentissage. maa ngi lancé rek appel boo xam ne si parents yi di wax ne ko comme ba léegi nag maladie bi mu ngi fii ñu ngi sant yàlla wàññeeku na waaye ñun en tout cas dinañu jël toutes les dispositions ñoom nag maa ngi lancé appel si parent yi collectivité territoriale yi enseignants yi ñëpp acteurs yëpp que ñu redoubler vigilance ñu mun a recevoir xale yi dans de bonnes conditions. mun a transmettre suñu enseignement apprentissage yi. syndicat liggéeykat yooyu yu nekk ci université yi ni ki démb lañ ko daal di taxawal status nag moom lu mu bëgg rek mooy daal di andi coppite bu baax a baax ci wàllu doxalin ak it ni ñuy xeexee dem nañ nag bootu ji ci ginnaaw FGTSB centrale bi nag fu seen na leen gunge. ci lépp la nga xamante ne daal dinañ ci sumbub seen loxo bokk na ci lii lee di encadrement ko ñu mën a demal seen bopp ci wàllu bu koom ak yeneen ya nga xamante ne daal dinañ ko yitewu kii di Alioune Faye moom la ñu tabu bees di secretaire général ñu teewlu Sidiya Ndiaye moo nekk secrétaire général FGTSB ginnaaw bu ñu génnee ci seen assemblée général boobu. tey dañ ñëw université installé li nga ne mooy statut syndicat autonome travailleur université du Sénégal. mi nga xam ne dafa décidé librement dafa ñëw affilié wu ci suñu centrale FGTS ñu koy rafetlu parce que tey gis nañ ne ñoom ñoo tànnal seen bopp ne FGTS lañ bëgg ñëw parce que gis nañu ligne syndicale nu muy défendre moo tax ñu tànnal ñu léegi nag tey ñoom ñoo décidé ne seen camarade Aliou Faye mi taxaw moom la ñu tànn pour mu jiite leen lu tax ñu tànn ko ñoom ñoo xam parce que Aliou Faye yàgg na ci syndicat revendication la yoroon responsable bu mag la ci kut mais kenn ci dara lu ñaaw mais gis na aussi li ñu leen bëgg a def di ñoom duñ ko nangu ay kilifa lañu ay responsable lañ moo tax ñu ne léegi nag démocratie may nañu ñu jël suñu responsabilité créer li nga xam ne mooy lu bees équipe boobu ñi fi adjointe maa ngi nii ku jigéen la te gis na ne jigéen ñi ñoo gën a déterminé ci combat donc loolu moo tax ñun ñu yaakaar ne affaire bi dana dem ci kanam ñu yaakaar ne tey affaire bi dana réussir ba tax na man leen rupture bi nag moom mooy doxalin bu bees maanaam góorgóorlu ba social bi syndicat social moo tax ñu koy wax ñu jàpp ci social bi bu baax dimbale doomu aadama liggéeykat yi ñoo gën a sonn ñoo gën a dee koo gis mu ngi leb ca banque ba mu ngi leb ci PAMECAS ba mu ngi leb fu nekk amuñu dara boo liggéeyee da ngay ragal sax ñibbi sa kër doo xam looy fay yóbbu looy nettali sa jabar parce que bor yi ñoo tax donc je crois que vraiment war nañ góorgóorlu mais aussi gis nañ ne war nañu gën a pousse pour li nga xam ne mooy habitat social bi nga xam ne moom la gars yi di euh, chef de l' état programme bi mu def ñoom itam ñu mën ci bokk moo tax man leen dinaa leen ñax ba ñu créé coopérative d'habitat social aussi pour jàppale liggéeykat yi donc je crois que loolu mooy innovation bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def mais aussi Sénégal bi yemul Dakar rek ci région yëpp lay dem Aliou ak équipe am bi fan yii di ñëw donc dinañ dem fépp liggéeykat yi ne bi ñoom dañ sol seen dàll dem toog waxtaan ak ñoom ne leen kaay leen ñu ànd ñu indi changement changement bu bees université yi pour que ñu déglu ñu xam ne war nañu jàppale ñun tamit ay liggéeykat lañu ay borom kër lañu dañuy liggéey pour am dara dina ko gunge ci lépp formalité administrative donc ñun dinañ ci taxaw mais ñu taxaw aussi ñu organiser leen pour ñu am seen autonomie financière parce que bu ñu naan syndicat aussi da nga am autonomie financière mais bu dee yow amoo dara mënoo régler dara ci patronat bi nga yaakaar mais doo dem parce que ku la abal bët ne la fii ngay xool donc loolu moo pour mën a dem donc ñun côté boobu nañ ci taxaw nañ leen jàppale aussi ci xeex bi lépp lu mu laaj bu fekkante ne ëllëg pare na ñoom pour coogi alors nañ ñëw seen wet ñu coogi pour régler problème yi. liggéeykatu artisan yu nekk ci Sénégal te ñu bokk te Revas nag ñoo ngi rafetlu euh, tabb gi ñu tabb jëwriñ ci seen wàllu wàllub liggéey boobee di artisanat ak nu mu munti demee bëri na liñ ci xaar. rawatina seen jafe-jafe yi ak yitlu lu saa su ñu leen di daal di dàq ci bërëb yi ñu nekk di dëgër pisma Pape mbay nag jàpp na ne lu ëpp ci ndaw yooyu nga xamante ne nag ñoo ko doon tàggat ñoom ñoo daal di jël euh, gaal yile utali mbëkk mi ndaxte amatul fenn fu ñu liggéeye fii ci mim réew Pape Mbaye ñu teewlu ko ci micro Sud FM. di sant baax la président Macky Sall ci ministre bu bees bi mu ñu àndil muy Pape Amadou Ndiaye. ñu am mbégte ci moom parce que ministère de l'artisanat bañ waree bañ ko waree am yàgg na. dina tax ñu jox gëdd artisan te la ñuy xaar ci moom aussi mbiru secteur bi ci la bokk artisan yi quatre vingt dix pour cent de la population ay artisan lañu te artisan yi mosuñoo gis seen bopp ci gouvernement waa xam nga bon boo seete fi mu nekk nii ñuy dem ci gaal yëpp ay artisan lañu ñu dee ci géej gi ñu ci ëpp ay artisan lañu kon donc artisan dafa état da ko war a jox gëddam moo tax bu fekkoon ne jox nañu gëdd artisan artisan yi du ñu génn mais gëdd biñ ko ñàkk jox mooy gëdd bi nga xam ne suñu partenariat ak état lépp déguerpissement la jóge leen fi toroxal ñu sonal ñu yàq suñuy matériel yàq suñuy bagage moo tax artisan yi ñu ngi jooy li ñuy jooy bari na am na ko fi nekkoon nekkoon ministre dans le gouvernement dafa doon wax mbégte mooy déguerpir artisan yi wàññi doole artisan yi te comme président bu nee un million d' par année léegi te weer wu nekk ñu dëgër piir waaw cent mille artisans kooku saaway amul njëriñ mbiru déguerpissement yi dinañ ko ko eggee waaw Birama dafa am loo xam ne ñu ngi koy jooy barki démb dama dem Colobane fekk fa ay artisan yoo xam ne ñu ngi yoroon seen atelier yor seen i place di ci tedd di ci teral seen i waajur mu fekk leen ñuy jaay ay téléphone portable mu metti ma lool waaw ñu xam ne rek joxuñu suñu gën léegi la nekk jam ñaajo aussi yàgg nañ koo wax ñun dem nañ ci benn réunion ak sama président Cheikh Dianka di ma koy remercier de passage waaw waxtaan nañu ak autorité étatique yi ba ñu ne woon dañuy créer commission boole ñu ci boole wuñu ci la nekk jam ñaajo dañ koy dégg rek ñu ne cinquante hectares waa quatre cent cinquante garages artisans surtout secteur automobile dañ koy dégg dama lay wax benn affaire bu yéeme waaw laajoon nañu fii ñu ne fonds boo xam ne pour artisans yi la ñu yóbbu ñu au niveau de la chambre des métiers de centaines d' artisans ku nekk ñu laaj la trente mille francs mais dañuy defal dañu lay defal projet asset financé la nooñu la xaalis boobu ba léegi ñun xamatuñ ci dara waaw dégguñu ci dara gisuñu koo xam ne aussi ne nan asset jox na ko ni ki démb nag fitna gu rëy lañu ñu daal di nemmeeku foofee ca Vienne ay nit nag ñoom ñoo daal di yor seen ngànnaay soqi ko jëmale ko ci bërëb ya nga xamante ne dafay jaamoo yàlla Euh, gën gaa ñaari nit ñoo ci ñàkk bakkanam bokk na ci kenn fa ñoom euh, am itam ñu bëri ñu nga xamante ne jot nañu am ay gaañu gaañu foofee ca péyum réewum Autriche ni ki démb la am attaque yooyu nag gis nañ ne. lu toll ci juróom benn lañ ko daal di defandoo ci ay bërëb yu nga xamante ne dañoo wuute te jege lool li nga xamante ne moom mooy jàngu wala boog bërëbu jàmmukaay yàlla yi nga xamante ne moom mooy yahudi ñoom ñoo ko fay jàmmoo yàlla foofee ca Autriche loole. ki ko xamle di police bu Autriche jaarale ko ci xaralu yees yi ñu duppee ko tweet mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen wante biñ ca noppee tuuti rek di ngeen amaat ñu daal di leen tegtalaat seen édition spéciale di addu ci élection yu réewum Amérique yu ñu fas yéene amal ci kanam tuuti maanaam nekki ñetti fan ci weeru novembre lay doon ngeen ànd ci ak kii di Baye Oumar Gueye ak ay invitéem Donc vous aurez tout à l'heure la rediffusion de l'édition spéciale sur la présidentielle américaine avec Baye Omar Gueye et ses invités mbokk yi fi la yem ak leen gërëm leen gërëm bu baax kii di Pape Abdoulaye Dieye soo li fàtte ñu fete woon ci xarala gi di leen ñaanal panaanub jàmm. Birama Ndiaye.